أحببت رب العالمين ما العالمين والعالمين وانقاد ذكر العالمين لك الكالي وجسدي أحببت رب العالمين مع الآمين والآمين وانقاد ذكر الأمين لكالكالي وجسدي نجد الأرض الذي بالقب ما دور النازي وليك نبي عظيم وسناني عن حسدي من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول bokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziar bokki jullit yëpp ñu ngi leen di ñu ngi leen di ziar ah su ngeen déggee xasaayit boobu ñu xam ni ndigal jóg jóg na ndigal loo xamante ni mu nga jóge ci sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa ba Bachiru di ndigalal liggéeyal Serigne Touba daayira xidmatul xadim kuréel bi nga xamante ni ñoo yore liggéey Serigne Touba fii ci Kër musa ci njiital Serigne Modou ak ay nattu ngoom ñoom ñëpp ñoo taxawal bis boo xamante ni ñu ngi koy taxawal le 7 mai 2022 euh, fii ci Kër Moussa fi tolloo ak monument bi. Euh, ci ndigalal nag sëriñ Ousmane Ñing di xalifatul am fii ci gox bii di Kër musa waaye ci ndigalal sëriñ Jili mbakke nekk suñu wasila moom fii ci Kër Moussa ci ndigalal sëriñ Muniru Amar fale ca Kër Gilaay waaye ci ndigalal sëriñ Alioune Guèye sëriñ Alioune Guèye fale ci sancu daara nga xam ni suñu wasila la suñu lépp la waaye ci ndigalal sayxuna Mbàkke euh, Kër Sega waaye ci ndigalal mu sëriñ mbake Mbàkke waaye ci ndigalal sëriñ Moustapha Mbàkke Gorom 2 taay maanaam daal kuréel bi nga xamante ni ñoo xidmatul xadim ñoo ambis bu ñuy taxawal euh, ci ndigalal kilifa yi nga xamante ni ñoom lañu tudd fii waaye nag ci ndigalal ak ndimbalal sous-préfet Pape Serigne nga xamante ni maanaam taxawal nañ wax nañ ci ñu ngi jóge ci ay waxtaan léegi waxtaan yoo xamante ni nit ñi ba dafa aju woon ci bis bi nga xam ne ñaa am na ci ñoo xamante ne ay wallëreelam ay wallëreem yam teewe nañ ko ñooñu kat kenn ku ci nekk fas yéene na cee def loxoom waaye commanda bet teewe na ko te it fas yéene na cee def loxoom ñoom ñëpp fas yéene nañ cee def seen loxo kon daal dañoo fas yéene taxawal bis boo xamante ni bis bi ñu ngi ko tuddee liggéeyal Serigne Touba ah, muy ah, maanaam bis boo xamante ni ñu ngi ko tuddee ah, bisub liggéeyal Serigne Touba bis boobu nag bu ne liggéeyal sëñ Touba nag liggéeyal sëñ Touba moom jullit yëpp la war képp ku dib jullit rek yaa ngi ci biir waaye liggéeyal sëñ Touba rek yemul ci yoonu murit kese ndax liggéeyal sañ tubaa dafa yaatu ndax sëñ tubaa boo ko dee liggéeyal jullit yëpp nga liggéeyal xeetu yëpp nga liggéeyal ndax irham jamial wara la waxoon te waxoon na ni fa kullu man xadamani aw saara fa najjihi waxfir lahu aw saara képp koo xamante ni liggéeyal na ma man sañ tubaa dinaa la musal ci àdduna waaye dinaa la musal lépp loo xamante ne looy ragal ci sa kanam waaye dinaa la dina defal na maat dinga am sippik bàkkaar sa bàkkaar yëpp daañ la ko jéggal ah, doo am benn jafe-jafe ëllëg yowmal xiyaam doo ko am ci barsax doo ko am fële ca taxawaay ba waaye nag bis boobu daal la set la mais ñu ngi koy fàttali jullit yëpp bis booba nag bu ñëwee fas yéene nañ cee jàng alquran bu ñu xëyee incha allah ah, suñu jàngee alquran daañu noppalu tabaarakallah ba ci ay jamonoy takkusaan suñ demee ba ay jamonoy tàkkusaan diggante tàkkusaan ak timis nag incha allah ku ñuy wax ak sàmm ak saa sàmm mi nga xamante ni xam nañ ko ci xasaayit ci Afrique ci Europe fu nekk moo fas yéenee taxawe bis ba waaye buñ jógee ci ak saa sàmmit conférence kat bu mag boo xamante ni ñu xam gën koo xam ci Serigne Khadim Ndiaye Kayar ñu xam ko ci Lamp Fall ak Afrique yëpp ak Europe moom itam fas yéene na fee def waxtaan woo xamante ni nii waxtaan wu am solo lay doon wu aju ci liggéeyal sëriñ Touba su ko defee kon ah digalal sëñ Ousmane Ñing ñu jox sëñ Ousmane daal mu àggale kàddu yi ci des tax te xam ni bis bi daal bisub liggéeyal sëñ Touba ñun ñëpp képp rek war nga cee jàpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillah inna waliyallah hasbiyallah wa ma tawfiqi illa billahi ah noo ngi am ay kàddu yu ñuy mottuli rek ci kàddu yi eh, sunu imam bi di suñu porte parole sëñ Adama li mu wax leer na xanaa ñu mottuli ci rek di gën a leeral bokki taalibe yi liggéeyal sëriñ Tuubaa bi nga xamante ni ñu ngi ko fi fas yéenee def ci turu xidmatul xadim bi nga xamante ni moo boole daayire yi nga xamante ni moo nekk ci Kër Moussa ak ci gox bi yëpp Euh, événement bi nga xamante ni ñoo ngi koy def le 7 mai di ci woo bokki jullit yëpp ni ko imaam waxe ak bokki taalibe yëpp bu ko defee nag ah xam naa ni dara darajey bis bi sëñ Basiiru Fall la ñu ko jox ndax naka jekk dafa toxu si ci dëkk bi dajeek ñu tàmbali xitma bi ba loolu amee it ñu ni ko xitma bi moom su ma yeboo ni ak lii ñu fii liggéey su ma yeboo ni dafa dajeek sëk ñëw fii kon yow su ma yeboo bu doon doom la yow moom yaay baay bi ko defee loolu moo tax ba jamono bu mu ñëwee ñu féetale ko ko dara jaale ko ko ko defee li nga xamante ni moo sabab xitma bi ñu fi war a def ci liggéeyal Serigne Touba it mbir bala nga koo mën a jariñoo da nga koy xam dañu ko féetale ci fukki at juróom yi nga xam ni Serigne Touba def na ko njaareem ndax barab ba ko sëriñ bi sanc kenn ku ne xam na ni tuddul woon njaareem mbay deelatu doon séeréer yaa ko moomoon ca mbudaay xam naa sababu sëriñ ba ñëw fa sax nasaraan bi ba ñu xamee loolu ñu ne nañu ko ko jox ndax bëgg ko bu fa nekkee rek yàlla mën a jël bakkanam ndekete yoo sëriñ bi ñëw na fa su ma yeboon ni liggéey fa liggéey boo xam ne fa la mott lee liggéey yoonu géej gi ak liggéey yoonu jéeri ji def fa fukki at ak juróom liggéey fa liggéey bu mag boo xamante ni su ma yeboo ni murit yëpp a ngi ci jariñu ba nëgë ni ba ci màggalu Tuubaa gu mag gi foofa la ko sose ak yeneen ak yeneen ak yeneen fa la wàcc liggéey it ñëw Tuubaa kon fukki ati njaareem yooyu moom la ñu war a waxtaane gan ko yee ci bokki taalibe yi xamalit ñi xamoon fàttali leen xamalit ñi nga xam ni xamuñu woon ñu dolli leen ñu daal di xam ko defee loolu it ah ñu ngi ciy woo bokki jullit yëpp di ci woo bokki taalibe yëpp di sant it ci ñi nga xamante ni ci bés bi ñu ngi ñu ci am yéene jàppale ñu ci ak CRD bi nga xam ne def nañu ko sous préfet toog bu ko defee commandant bi toog monsieur le maire toog ñëpp taxaw kenn ku ne am ci yéene ak waa eaux et forêt ak waa élevage bi ñëw ñu ko yor ñëpp waa croix rouge invité woon nañ leen ak ñi nga xamante ni ñoo war a saytu bis bi kenn ku ne am na yéene la ko yàlla féetale ci mu war koo jàpp ba bis bu rafet waxtaane nañu ko ba kenn ku ne am na ci yéene fas nañu ko takk nañu ko ah bu ko defee noo ngi leen di tàllal loxo di leen wax ni leen bis bi euh, noonu ñu ko waxee le 7 mai la ko defee di ci woo góor ak jigéen di ci woo bépp jullit di ci woo mag ak ndaw waaw ah, di ci woo ñi nga xamante ne daal yàlla féeta na leen ci wàllu zahir bi di ci wooti ñi nga xam ne yàlla féeta na leen ci wàllu baatin bi bàyyiwuñu kenn bu ko defee loolu mooy jotal gi nga xam ne doon naa ko ci dolli bu ko defee it ah bu ko defee bis baa ngi noonu ñu bokk ci bàyyi xel ñun ñëpp bisub ñëpp la su ma yeboo ne bisub murit la bisub teejaan la bisub xaadir la bisub laayen la bisub ñi nga xam ne bokkuñu ñoom diine sax liggéeyal Serigne Touba dafa yaatu boo demee xel koom da nga fay gis sax catholique yu fay liggéey sëriñ Touba toll noonu kon woo nañ ci ñëpp bàyyiwuñu kenn irham jàmmeexal waraa la sëriñ Touba ñaanoon te liggéeyal sëriñ Touba day taxa jotu ci àddina day tax jotu ci safara yowmal xiyaam bu ko defee te sëriñ bi jullit yi la yéene woon jàmm kon bis baa ngi noonu ko defee na ko ñëpp jàpp ñëpp taxawee ci asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jàmmahakum nasarakum ayadakum yarhamukum ihaanukum islaamukum allahu rabbi amin barka murtada